maa ngi leen di jaajëfal ci wuyu bi ngeen ñu wuyu parce que lii dafa neex woote say moroomu sénégalais ñëw wuyu la di leen xamal ne ñun ñu nekk fii yëpp ay jeunes sénégalais lañ jeune sénégalais yoo xam ne dañoo gëm ne dañuy réussir maintenant pour ñu réussir nan lañ koy defee dañoo créer suñuy propre entreprise dañoo créer suñuy compte propre entreprise ça veut pas dire que ne dañoo jël ay appartement dañoo indi ay bureau dañoo jël ay personnel non suñu propre volonté la ñu créer suñuy entreprise nit ñi dañuy faral di wax ne da ngay dem ci Facebook di def ay publication di wane sa yaram et autres ñi nekk ci Instagram di bugg di def leneen ñun noonoo dañoo décider ne Instagram muy Facebook muy Snapchat muy suite business lépp mën nañ ci gagner suñu vie te résultat yi moo ngi nii tey am nañ quarante 41 entreprises yoo xam ne ñoo ngi fële ci saalu Notre-Dame du Liban di présente seen produit publicité bi sénégalais yëpp yëg nañ ko li leen jaaxal kay mooy nan la sénégalais yi def ay jeunes def ba créer 41 entreprise du lenn lu dul gëm suñ bopp gëm ne jàng nañ am nañ suñuy lijaasa du ñu toog comme def li jeunes yi di def damay toog ci garab gi di xaar état jël ma damay dem ànd ak ministre bi pour politique non non dañoo créer jaar ci yoonu lan entrepreneuriat tey moo waral lii ngeen ñëw fii tey bu ñu liggéeyi woon tey doole ñu wuy si bu ñu doon événement tey doo leen ñëw te ñi ñu àndal ñi ñëpp ay jeunes yu engagé wu lañ Babacar wax na leen ko titulaire de de master en droit la monsieur Seck moo ngi nii moo yor cabinet bi moom moo ñuy formé donc ñoom ñëpp ay jeunes lañ yaa des filles am na jigéen ñu bari ñu nekk ci ñun boo leen yeggee fee dina dina leen dina leen nekk lu extraordinaire ci yéen donc di lancer appel rek di wax jeunes sénégalais yi toog leen Sénégal réussir leen Sénégal bu leen dépendre ci kenn jàng ngeen fi ngeen war a jàngee am ngeen seeni diplôme créer leen seen propre business merci. d' accord ñun suñu liggéey c' est tellement simple dañuy créer ay entreprise nan la ñuy créer entreprise dafay am jeunes yu ñuy recruter par cabinet MBS cabinet bu nekk entreprise bu nekk dina recruter trois à quatre jeunes donc ñu ngi contribuer ci réduction taux de chômage bi en même temps maintenant bu ñu la recruter dañ lay former nan ngay utiliser téléphone téléphone bi li ñu ciy utiliser c' telement tellement simple WhatsApp la ñuy liggéeyee civic business Facebook loolu kese la ñuy liggéey ak Instagram ci loolu noonu ñu ngi ciy am ay clients ci loolu noonu ñu ngi ciy am ay témoignages ci loolu noonu ñu ngi contribuer ci développement dëkk bi parce que man mii di wax ak yéen chaque fin du mois dina am sama salaire te sama salaire boobu naa ci dimbale samay waajur. Babacar mi dend ak man chaque fin du mois dina am salaire am mi ngi ciy dimbale ay waajuram. waaw monsieur Faye mhm. euh, ci biir loolu est-ce bu ngeen ko waxee seen xel dem na ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw yi. Mhm. est-ce que bàyyi ngeen ñooñu xel est-ce ñu bokk nañ ci seen programme ak ndaw yooyu noonu euh, nga xam ne mokkala bu ñu jumtukaayu xarala yu bees yi muy wàllu digital ak wàllu numérique est-ce pare ngeen pour accompagner leen pour ñoo fekk leen ci liggéey bi. waaw parce que ñun suñu entreprise yu ñuy créé nekkul ne dañ koy def ci benn fan ci ñaari fan wala ci benn mois. dañ koy def mu dem bu mu nee def sax dootul mësati dëñ ci loolu lañ mettre en place benn cabinet bu ñu naan cabinet MBS lan mooy importance cabinet MBS mooy formation parce que képp ku wax liggéey day wax formation maintenant ñoom def nañ fa ñoo xam ne xarañ nañ parce que sànq am na ko ko soulever nee na gis nañ ne ci entreprise yi compétence amu fa ci loolu noonu ñun jeune bi boo ñëwee ak sa diplôme fraîchement dañ lay defal lu ñuy wax mooy renforcement de capacité maanaam dañ lay jox téléphone bi formé la jàngal la nan la ñuy defee ay publication nan ngay defee pour gagner lu bëri bëri bëri ci téléphone yu ñuy utiliser donc ñi ngi bàyyi xel bu baax ci ñi nga xam ne mosuñ jàng ça veut pas que ne jàngoo doo réussir ñun limité wuñ ci loolu nga jàng nga bañ a jàng nga xam nga bañ a xam boo ñëwee suñu cabinet MBS di ngeen réussir incha allah. asalaamaaleykum mbokk yi man maa ngi tudd Babacar si nekk directeur général bu renforcement naturel renforcement naturel société bi nga xam ne day joxe ay traitement si wàllu diabète hypertension hémorroïde ndax gis nañu hémorroïde daf fi bëri te hémorroïde conséquence yi mu mën a indi daa bëri ndax nit ki mën na am hémorroïde te mu jural ay yeneen jafe-jafe ndax gis nañ ko mun na toog ndax hémorroïde boo ko amee moom day coaguler sa deret bu coaguler sa deret da ngay am ay douleur musculaire ndax deret du mun a circuler loolu la ñuy wax il y aura une mauvaise circulation sanguine mun na jur tamit infertilité masculine ndax hémorroïde sa sang buñ ko buñ ko bu coaguler y aura ce qu'on la destruction des des organes reproducteurs masculins et là on le beaucoup de jeunes son la On note le rétrécissement de leur pénis, beaucoup de jeunes sont là. On note l'éjaculation précoce qui est beaucoup plus fréquente. Tout cela, le day wone conséquence conséquences hémorroïdes dafa bëri pour yooyu loolu moo tax ñun nag ñu jug en tant que responsable c'est-à-dire di traiter les hémorroïdes juste à la base de 17 mille francs rek ngay fay ñu jox la benn pommade benn thé pour mun la ko traiter mais pour foire bi ndaje bi mooy lan dañu bëgg a wane suñu jeune cest bon suñuy camarades. que jaruñuy dem c'est-à-dire à l'étranger jaruñuy emprunter les pirogues ñëw leen ci cabinet MBS cabinet boobu na dalay former dalay entretenir dalay accompagne man mi wax naa ko sànq je suis de ndax man ma génnoon naa ci faculté de sciences juridiques et politiques dem ba bind sama li sama œuvre littéraire bu ñu woowee les yeux le vent mais bu mu ñëwee cabinet MBS dañu ma former à la base te la ñu ma former cest à c'est pas extraordinaire ndax téléphone lañ ma jox ci biir téléphone bi ñu créé ma suite business Instagram Facebook may def samay publication may am ay retour seulement nag boo on a rien sans peine boo bëggee dara bon dafa laaj beaucoup plus de rigueur et de conviction loolu lañ may jox ñu accompagne ma ba ma am li ma am liñ jëpp voilà. ñëw ci création d'emploi ngeen di wax. oui création bu ñu wax instant yi euh, c'est-à-dire Sacré-Cœur fee la ñuy njëkkee Ouest Foire bu jugee jógee Ouest Foire ñu dem également euh, fële Almadi bu ñu Almadi ñu ñëw fii nii Sacré-Cœur dañoo envergé d'ici 6 mois pourquoi pas ñu dem cest si Thiès Diourbel extra hors Dakar pour gën a mën a jege client yi ndax parfois dañuy def livraison fii ba Tambacounda fii ba Casamance et on est pour ça ñu jël suñuy produit teg ko si horaire boobu maraîcher pour yóbbu leen loolu produit donc pour ça dañoo bëgg a beaucoup plus de jeunes également former da ngay gis comment développer son business boutique bi nga xam moom mu ngi fii di jaay ay sac ay tout mun nañ ko créer à travers les réseaux sociaux ñu développer business am te loolu nag yombal lu ñu utile les bases mooy Facebook site business Instagram voilà loolu mooy leen méthodes